jamono ji dégg nañ benn euh, benn féticheur ku ci mel ni Koune neen day xar géej gi. xam nga Sénégal ñoom ñooy mooy lu ma Sénégal ñooy jël ay affaires yoo xam ne. Hmm. di ko dooleel wala di ko fen yooyu tuul yooyu Sénégal. gars yi tal nañ leneen kurul kooku man tur waxaw ma kuru kan. kuru kan man yooyu bëgguma ko sax tudd débat yi kooku yooyu bàyyi ma yooyu wooyu xeesalkat yooyu yow Sénégal ñooy xam nga fii lan la ñu war a wax saraatal mustaxim mhm. saraatal mustaxim mooy nu ñuy jaamoo yàlla mhm. nu ñuy wàññee seytaane wala nu ñuy yokkee fa yàlla mhm. mais ay kunkande yooyu xaw ma kunk yu bàyyi man ñooñu waaye booyee nga xam ne ay ko xam fa ko ko fu mu dëkk sax koo dafa dëkk Sénégal ku xanaa xaw ma kooku si yoon si sariya dañ ko war a jàpp caw ko ay xiir wala taal ko wala lakk ko <laughs> yow li prophète bi ak yàlla lu mu wax si alxuraan yonte yàlla Moussa lu mu def si géej gi yow nga ñëw nit naan yow da ngay jéem a xar géej gi gars bu ñu may débat ay tur kooku ay ñooñ. moom sénégalais yi ñu am ba ba pare li ñu gën a jaaxal mooy nee na moom jour tamxarit la ko bëgg a def. waay waay waay tamxarit ñoo koy dem jàpp. nday woote loolu. <laughs> maa ànd ak ma fi ñu dem jàpp ko ñu ànd ak moom ba foofu. ñun moom ñu xar ko si géej ñoo koy xar. Sénégal nañ bàyyi seen affaire yu ñàkk fay doy ay kunkande yooyu du débat. Eh. gars yi nañ débat xam nga loolu yëpp loolu yëpp ay politique nguur bi la rek. Mhm. pour ñuy jéem a fàtte taan mu méttee. dëgg la taan bi dafa métti nañ wax si loolu taan bi dafa xaat. all of my time we had, everybody suffer here. Mm. People come, wake up early, they cry, Dude. morning, evening, night. Mm. Everybody don't. <laughs> gars nañu wax town bi waaye ah, moo loolu. gars yi la ñu wax nee nañu wax si town bi nu mu méttee. topp mu ñëw ba foofu waay waay nañ bàyyi kooku waaye man kooku ay kumkande yooyu dañuy yooyu ñooñu man ku nekkul si alxuraan. Mm-hmm. du ma wax ak yow parce que alxuraan la lépp nekk. Mm-hmm. yàlla dafa wàccee alxuraan. te boo ko doon wax lan nga xëy wax moom. aw ma jotu kooku. man kooku aw ma jotom kooku lu may parce que ay naan day xar géej. Mhm. parce que ñun ay julit lañ. ñun am na wax yoo xam ne soo ko wax day mel da ngay blasphémer. exemple la. da ngay bokkaale yàlla. Mhm. donte yàlla Moussa prophète la. Mhm. kon man kuy nekk fi di wax ay wax yooyu noonu. man si yoon man bu ma la jàppee suñ dayee ma ak moom. am koy sañ naa jël jamate ko ba mu sedd. <laughs> yàqul kàtte barki alxuraanul karim kooku jour bu ñu dayee ba ñu jàkkaarloo. Hmm. te moom xam na moom bu baax parce que Sokane ñëpp boo ko xam. dëgg la su dee moom lu muy woote mu ngi si moom dañoo xar ma. mu ñëw xar la te bàyyi ah, géej na loolu lool muy wax noonu. <laughs> géej moo wër àddina kooku tuulam yooyu nekkuma si. <laughs> géej moo wër àddina ñëpp xam nañ géej maamulaan. Hmm. géej. isam li la. su dee lu muy woote dañoo xar ma moo gën. moo gën muy xar mu dem xaral ñu waa nguur bi. <laughs> Ah, dem xaral waa nguur bi. Eh. moo gën muy wax fenam yooyu. xeesalam yooyu ak. pëtam yooyu mu kolir yooyu fenam yooyu góor mhm. yàlla du mel noonu góor yàlla da ngay nekk góor xoolal sama rakk yi booy ñu ngi nii liggéey rek lañ xam mm. booy xool leen liggéey rek si naaj bu tàng bi mhm. mais nguur bi xamuñu lii xoolal booy ay booy ndaw gëm seen bopp di liggéey mhm. ndax bañ a def ñaawteef xool leen ay référence lañ tey ministre boo jël teg ko ci kaw saret bi mu ñor jàmm si yéen yàlla la yàlla taxaw mm. koppar yu bari te barke mm. mais ministre boo teg fii du dund sax mu ñor parce que xamuñu dëgg. <laughs> dëgg la mais xoolal booy ay jàmbaar la ñu ngi nii xoolal seen matériel lañ yor. Mhm. liggéey ko ab dañ koy dem jaay jox seen yaay ak papa yi. dëgg la te ñoom ñu nekk fi di jël xaalis dëkk bi. Mhm. mais xoolal booy tey kii rakk yi ñii soo leen jël taxi ku nekk taxi. li ñu liggéey triple bi du Sénégal exemple yaa ngi fii mhm. gars nañu bàyyi di nax waa dëkk bi mënuñu nax waa dëkk bi ñëpp a yeew ñëpp taan bi fépp la méttee exemple yi gis nga ko kunkaangene boobu nga wax boo ko tegoon si saret bi mu <laughs> <laughs> mais boobu instant yii boobu léeg moom li nekk ci kanam booy xar géej gi te loolu la ci nekk te te te ni nga ko waxee woon gars yi moom neen ñëpp nañ ko xaar du tam xel incha allah mu xar géej gi.